Ousmane Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk secrétaire général administratif euh, bu coordination nationale des euh, techniciens du Sénégal euh, déjà nga wax ñu si seen kuréel gi kañ ngeen ko tëral lan moo ko tax a jóg exactement di coordination nationale des techniciens du Sénégal. Ah, mu ngi wuyoo ci tur coordination nationale des techniciens du Sénégal. Mhm. actuellement présidé par su ko jigee mi ngi tudd. Euh, coordination bi nag li bu tax a jóg lenn kese la mooy jéem a xeex ak ak yelleef yi nga xamante ni étudiant mu ngi koy mu ngi koy mu jàn jànkonteel euh, ci biir école ak ci environnement aussi. d'accord euh, ban at ngeen tëral coordination bi Ousmane. 2004 2004. Euh, ngeen organiser point de presse euh, léegi euh, lan moo tax ngeen convoqué taskatu xabaar yi lan mooy problème bi exactement. waaw problème bi problème bi ça tourne ñu ngi koy ñu ngi tourne autour des bourses et des conditions que vivent les les les étudiants. Mhm. maanaam conditions yoo xamante ne ñu ngi koy dund actuellement ci école yi. comme lan exactement nga expliqué ñu ko largement waaw. bourses yi nag dañoo gis ne à chaque fois pour ñu jot suñu bourse day nekk un tout un problème day nekk problème bu rëy entre étudiant ak administration ou bien entre étudiant ak policier ou bien autre parce que dañ lay naan chaque six mois bu nekkee si mois tax dañ lay fay te da ngay yegg ba six mois duñ la fay ñu lay ñu lay dawaloo di la ne carrément bu ci ñëwul on a des problèmes de signature après nga ñëw ba huit mois on te dit encore que oui dañuy xaar ba ba ba ba ministre lu mu engagé yëpp jeex mois yu engagé yëpp jeex ñu soog a fay. te loolu on trouve c'est anormal. d'accord ak euh, yan yeneen jafe-jafe ngeen am si si si côté njàng mi bu weesoo uh, jafe-jafe yi ngir ngeen jot seen bourse. waaw jafe jafe moom jafe-jafe moom am na am na am nañ jafe-jafe concernant toilette yeeg euh, table bain parce que boo bëgg nañ ci euh, ñu réfectionné suñuy table bain am nañ problème tamit bon tableau yéen a yaa xam ko ay manqué nañu ay ta ay ay léegi bourse yi ngeen am na problème ñaata weer ngeen toog fayuñ leen seeni euh, bourse Ousmane. waaw toog nañu toog juróomi juróom benn juróom juróom ñetti weer juróom ñetti weer. voilà. naka la demee noonu ba ngeen toog juróom-ñetti weer fayuñ leen seeni i waaw xam nga xam nga xam nga xam nga ministre bi. waaw. moom moom def moom dañuy def seen arrêté maanaam six mois six mois mooy juróom-benni weer. waaw léegi étudiant di juróom-benni weer léegi étudiant di toog soog a mhm. octobre. novembre décembre janvier février mars. mars ñuy fay la. Mhm. am début mars war nañ la fay. léegi ba avril ba léegi fayaguñ. fayaguñ leen mais socialement noonu naka ngeen koy dundee toog wii ma euh, joxuñ leen seen i bourse socialement naka ngeen koy dundee ci biir université bi. waaw métti mhm. na. moom parce que étudiant ba nga xamante dafa war a jël cours war a entreprendre boppam war war a war a jël transport parce que. Euh, établissement amul logement social. Hmm. donc des fois da nga ba géej wala jógee ba ba di ñëw ak instant yi transport nga xam ne dañ koy yokk. Hmm. war a jënd sa sa bopp plus nourriture parce xamante ni ñu dëkk ba Matam ñu dëkk ba euh, Saint-Louis. daal conditions socialement métti est-ce que est-ce que jéem ngeen euh, contacter autorités compétentes yi ci euh, ci jafe-jafe yi nga xamante ni yéen a ngi koy jànkonteel est-ce que def ngeen ci ay jéego aussi. waaw ñun moom ñun moom ñuy def li ñu mën nañ euh, dinañ yi dinañ def suñu communiqué pour. Mhm. alerter leen carrément quoi oui ça ñun neexuñu. Mhm. mais on a vu que amuñu benn réaction. génn nañu tamit waxtaan ak suñu ak suñu suñu suñu directeur général ak suñu proviseur pour ñoom ñu jéem a jottali suñu cas ci ministre bi mais ba léegi amuñu nag li ñuy ñaan mooy jéem a am audience ak ministre parce que bëgg nañ tamit suñu bourse ñu bancarisé ko bëgg nañ tamit suñu bourse ñu mu nekk loo xamante ni day mensuel te bëgg nañ ñu koy fay à Euh, am ngeen plan d'action Ousmane bu weesoo euh, conférence de presse bi ngeen xam ne organiser ngeen ko fas yéene ngeen amal marche sitting wala euh, grève lan ngeen fas yéene def. plan d'action bi moom sa continue ba léegi mooy grève bi grève ba léegi day continuer parce que grève illimité la ñuy wax tant que amuñu audience ak kii bi wala amuñu satisfaction ci kii revendication ñu continuer grève. am nga appel. booy la vitesse supérieure. waaw. Euh, am nga appel bu ngeen di lancé njiitu réew mi par rapport ak seen situation. waaw njiitu réew mi moom dañ koy lancer dañ benn appel rek euh, na jàppale ndaw yi nga xamante ne ñoo toll ci ci ci ci âge bu jàng ñu ñu jàppale ñu nekk dans de très bonnes mm-hmm. mën a jàng bu baax. waaw parce que a jàng. Mm. Mm. léegi ñu wax un peu oui euh, ci euh, benn sujet d'actualité di ñàkkum xëy bi nga xam ni souvent dafay laal diplômé yi maanaam ñi jàng ba pare yor seeni lijjaasa euh, pour yow tey ji pour régler problème boobu wala wàññi ko bu baax a baax lan mooy solution lan nga si xalaat. waaw comme ni mu ko waxee sànq rek jéem a jigéen ndaw yi rek jéem a tëdd ay ay kuréel nga xamante ne mooy tax ndaw yi di ci seen bopp tey mënoo jàpp ndaw yi mën na jàppale ndaw yi à travers entrepreneuriat mën na jàppale ndaw yi ci lu bëri ci fan yu bëri. Mhm. yow daa gis nga ni entrepreneuriat bi solution la. entrepreneuriat la solution la parce que dara dara gënul dara gënu koo baax. Euh, kon daal da ngay rafetlu kuréel yi nga xam ni état bi teg na ko comme euh, ANPEJ euh, nekk kuréel bu état bi teg DER nekk kuréel boo xam ni état bi teg na ko pour muy financer ndaw yi ñu mën a yëngatu ci wàllum entrepreneuriat. waaw dama koy rafetlu bu baax a que parce que loolu kese moom moo mën mën a jënd situation bu nekkoon situation bu précaire bu nekkoon. Mhm. jéem a évoluer ndaw yi moom boo leen moom danañ dem. li ma bëgg xam mooy ñi e, génnee foofu lycée technique Maurice Delafosse e, bu ngeen fa jógee si yan branche ngeen di yëngatu en fait loolu mooy question bi. branche waaw comme tey ji di nga gis ñu génnee tel école nekk taskatu xabaar avocat wala leneen ñi nekkee foofu ci lycée Maurice Delafosse bu ngeen génnee lan mooy da ngeen nekk ay génie civil ay architecte wala lan. Ah, am na mm-hmm. industriel bi. Maurice Delafosse. oui am na am na ay mécanique tey boo jëlee CPC am na am na compta am na am na ay ay comptable am na am na am na ay transit transitaire am na ceux qui suivent la commerce international waaw yana yana tant d'autres yana ay bureautique bari na daal ay am na am na am na am na am na am na kii yu excellent moom franchement am na filière yu excellent yu fi nekk voilà Ousmane Seck maa ngi lay remercier xam naa bàyyi la peut euh, bu amee euh, message boo bëgg a euh, lancer seen ministre wala njiitu réew mi par rapport ak seen situation. waaw suñu situation moom comme ni ma ko waxee sànq rek nañu jàppale nañu leen di jàppale te ñoom la ñoo si mën a jàpp comme que ñoom la fi yàlla fekk actuellement ñoom la ñoo si mën a jàpp donc dañuy ñaan nag ak président mu jàppati baax jàppale. ñi nga xamante ñoo nekk ci formation professionnelle ak technique euh, sont des techniciens sont des techniciens supérieurs sont des techniciens supérieurs yi formation bu baax la suivre parce que si fi ñu nekk ci am na am na am na d'excellents professeurs y a un euh, kon Ousmane Seck maa ngi lay remercier may fàttali ni yow yaay secrétaire général administratif bu coordination nationale des techniciens du Sénégal merci beaucoup Sénégal